dañu ñëw tey ànd ak euh, Ayib Daffé l'honorable Ayib Daffé nga xam ne moom mooy euh, mandataire u candidat Ousmane Sonko que euh, ñu ñëw jël si fiche parrainage président Ousmane Sonko ndaxte umpule wu leen ne tribunal nga xam ne mooy àtte yoon wax na ne li muy def Ousmane Sonko du yoon dañ ko war a jox ay fiche de parrainage Sénat li nga xam ne moom mooy saytu élection yi nee nañ jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage Sénat bind na ñi nga xam ne ñooy euh, direction générale des élections pour ñu jox ko fiche de parrainage am boobu ba léegi Macky Sall na leen bañ leen mais yoon li mu wax mooy euh, Sénat bi nga xam ne mooy saytu élection yi bu fekkee ne ñoom administration dañoo bañ a def li nga xam ne moom la leen yoon wax moom mën na leen a wuutu maanaam Sénat am na compétence pour joxe les fiches de parrainage à Ousmane Sonko ayib ñëwoon na fi bi yow mooy ñaari yoon je pense ñu ñëw ànd ak moom tey yaakaar na nag bu ñëwee euh, li nga xam ne moom la yoon wax incha allah ñoom nañu ko def parce que nag Macky Sall li mu bëgg def ci réew mi kenn xamul lan la moom nee na yoon bu dalee ci ko Ousmane Sonko nañ ko appliqué mais bu fekkee ne yoon dafa dal ci koom. moom ak état Sénégal mu ne mu ma bañ tëdd ba ma jaaxaan ne du ko nangu alors loolu day loo xam ne lii lu doy waar la moo tax ñuy wax waa opposition bi nañu jël conscience xam ne lii ñu teg Ousmane Sonko ëllëg si biir bu ñuy gën a avancé Macky Sall di gën a def li ko neex dana beddi ñi nga xam ne ñëpp ragal na leen ci élection yi ba nga xam ne bii ñi muy des ak mooy xëy na ñu nekkoon ci dialogue ba wala ñi nga xam ne moom la ñoom la wóolu mais li nga xam ne moo jëm ci opposition ala kulli aal ci ñu ko bëggee kenn waru cee taxaw dem élection kooku nag ak ah, comme il le dit lui-même nous on fera face à cela ce pas normal ce n'est pas juste ñi ngi toog di xaar ay mi ngi ci biir euh, kii nga xam ne mooy euh, président Sénat nee na dana ñëw ci li ñu wax yaakaar nañ bu ñëwee tey daal yëpp mbir mi dana sotti